baax di nuyu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu say collaborateur di nuyu ministre sàmba si ak la directeur du budget Moustapha Ba ma ci pare nag di nuyu sama naataangoo yi ma nekkal ku ci nekk nuyu naa la ci sa tur ak ci sa sant di nuyuwaat bu baax sama président de groupe parlementaire tay nak dama xawa soj motax baat bi dafa dis ndax liggey bi dafa bari te duñu nek ay maire buñu paré fi duñu nek ci terrain bi ba xaju guddii motax baat bi xawa dis te ñaka wax ma ngi nuyo lu bari bari monsieur le ministre ben ma ngi lay dalal dila ñaanal yalla mënon na lak sax xalpular waye dama bëgg comme bi dafa dis ma wax olof ñépp dégg yow borom mbaax nga yaa ngi liggéey boole boog dara ak wax ñu nit li ñu fi teg réew mi la liggéeyal askan bi seet seeni mbëbët seet seeni tawat li ñuy joytu luñ ci mën a saafara ñu saafara ko luñ ci mënul saafara ñu indi ko fii ñu bokk ko pencoondoo ko waaye macha allah mention spéciale yaa ngi dox te boolewoo ci wax yaa ngi ci te boolewoo ci wax yaa jàppale son excellence le président Macky Sall lenn rek moo ñu jaaxal jikko yi jikko yi soppeeku jaaxal nañu torop keroog bi ñu waxee Miss Sénégal ñu wax ay mbiram ma ne xanaa Miss Sénégal rek mooy jigéen am na jigéen ju ko jiitu woon te amoon fi problème te ni ñu taxawoo Miss Sénégal. taxawoo nañu ko taxawoowuñu ko noonu kii euh, Adji Sarr mais xanaa Adji Sarr amul yaay xanaa Adji Sarr du jigéen xanaa Adji Sarr jigéen juru ko xanaa Adji Sarr moom dafa bokkul ci réew mi donc ñu bëgg nag bu fekkee ñoo bokk réew mi bokk soxla yi bokk aajo yi amul kumba ndar sàmba ndar ñépp ci mbir mi ku fi def lu ne weng ñu wax ko ki fi def lu ne weng ñu àtte ji ko ku fi def lu ne weng ba la justice woowee da ngay wuy ji bala ngay jàppale ku ñu woo day fekk yow bañ la woowee wuy ji nga ci njekk ak teraanga waaye di yee fitna saa su nekk bu ñu woowee keneen nga dugg ci yow bu ñu la woowee doo wuy ji nga naan da nga soxla réew mi nañ la ko jox tey ñu xëy ngeen xam ne ministre de la justice mooy ñëw ngeen na ngeen dajale xale yi ñu marche ba war a yegg si ah bu dee réew mi président Macky Sall dafay nelaw ñun du ñu nelaw waaye nag heureusement que moom dafa ànd ak dal Anda ak yar ànd ak teggin xam liñ ko jox limuy jar ñi mu ko denkit xam liñ leen jox limuy jar donc ñu ngi lay wax tay ji dalal ak jam dara du la fi metti ya fi tok ak jam ñu voteel la ak jam ñu ak jam ginaaw suba jam ñu tej ko ci jam te dara fi yëngu nuy ñaan ñep sant ñep lu ci manki ngeen xam ni sa matut lu ci matit ngeen xam ni aduna tedde non dama nek maire nak may agence euh, ki foraine ba nii ni ñu nekkee nii ci pré campagne bi ñi ma ñëw jooytu si loolu bari na ma ne woon nag tey comme di nga ñëw sonn naa mais dinaa ñëw pour jëli jël ci kàddu mais fi ñu toll dama sonn baat bi sax dafa diis waaw loolu daal toxoon ma ñëw maa ngi lay sant di la gërëm ñëpp am nañu ay juddu ñu ngi informatiser état civil man sama mairie informatiser nañu ko jot nañu ba ñu ngi ci formé nañu ba ñu ngay liggéey juddu fictif amatu fi. daanaka jeex na mais li des it dañoo bëgg nga jàppale ñu ñu mottali ko waaye lépp mat na nuyu naa ñëpp sant ñëpp.